૨૨૨ ૨૨ ૨૨ été possible. Merci beaucoup. man je l'aime bien. macha allah. waaye sama beneen xarit moo koy jox. muy Maysa sama xarit kii su ma fekkoon jamono fu mu bëree ma ànd ak moom barke Rasulullah. maa ko bëggal sama bopp dafa yaru dafa baax dafa bëgg nit muy ambulance yaa koy jox raayam.

bon ñun nak mom li ñuy def rek moy di ñaanal ñi nga xamantene ni ñoy japp ci bés bi ba muy réussir muy tout. merci mon ami général yan kaddu ngay sanni waaw onze billahi min seytaan rajim ginaaw bañ sante yalla julli ci yonent bi di gëreem suñu ñaari wajur di nuyu wa Malika yëmbal ben Baraak boon Kër Massar ba ñaar wa montagne wa mbëbës ndax man ñom la am di rafetlu Luli vraiment di fi nuyu képp ku fi muy góor ak jigéen di leen nuyu di leen siyaar di leen jox seen wàccuwaay nuyu tamit association bi ku ci mel ni président grand alpha ndax yaakaar naa ñoom dañuy dundal làmb di nuyu tamit sama mbokk mbër yi ma fi fekk amaana bu ma limee damay juum mais képp ku fi mbër siyaar naa la jox la sa wàccuwaay ndax ñun catégorie poids lourd lañ nekk mais yaakaar naa rajaxe lañ wax moo jël affaire yi dama koy féliciter ndax mbër la champion la te ñun it yaakar naa ne yàllaa ñu noto ñu bokk ñu ci ni nomi amaana mënoon nañ cee bañ a bokk ndax gënuñu fi kenn fi kenn lenn tamit mënuñu fi kenn di wax suñu grand Jordan la yaakaar naa sànq dafa wax wax ju am solo te gars yi duñ ci bàyyi xel yaakaar naa mbër da ngay am kilifa te tamit ñun ay ndaw lañ ay mbër lañ te dañoo dund lu nekk ci làmb man ba may jóge Malika sama koñ naan damay bëri ji mbapat dañ ma doon wax bul dem baaxul dañ la ciy yàq dañ la ciy liggéey dama daan wara dem du ma am paas sama grand bi taxaw da barki alquran day yëkkati 2000 wala 5000 jox ma ma buxante ci njaga njaay des fois ma wara dem lamb jo xamne mën na départ suba ci guddi gi laay yegg suma ma dama yegg rek teg sama bagage beuri ma ci doli ben affaire suma jëlon ci lamb 50 millions exemple wala ma jël fa 20000 francs bala ma ci may ken deureum dama ko tek ci loxom ba pare moom mooy divisé te loolu dafa am solo mbeuri nañuy nañuy ko leure ndax lu am solo la mbeur du dof mbeur du ben quelqu'un bo xamantene sa su dañ ko war di minimiser mbeur noble la xawma ku jappé sa bop ku ñaax féré man dama jappé sama bop noble sama morom duma ñaaxal féré ci lenn ndax limay def dama ko gëm dama ko bëgg comprendre nga di féliciter gaay tamit di rafetlu li naan len contane nañ sant nañ ñëpp gëreem ñëpp di wax déwén yàlla na gën neex ñëpp am jaamu vraiment jaa ngeen jeri jeuf magam bi mi wax mo taxaw na ko kee moy magu rajaxe moy magu general bu Malika waaw ndeysaan General, give it, give it, give it, give